monsieur le ministre nous commune Mbacké ma ci bataille. commune Mbacké di commune bo commune rurale la en bon département ministériel De la laaj monsieur le ministre ah, que comptez-vous faire avec les acteurs de l'industrie agroalimentaire de Touba ndax mën ta wax mbacké té bolé wo ci Touba Manam lan nga lan nga na ma def ak ñi yëngu ci agro agroalimentaire ci Touba Benen bi ci top. monsieur le ministre comment avez-vous l'intention de protéger cette industrie sénégalaise Manam nous nara samé, wala walla aare suñu fait Sénégal Je bi ci monsieur le ministre pouvez-vous nous faire l'état des lieux du tissu industriel sénégalais Il question a une question dinaa la ko poser di gërëm di sant di ci sama doom jee wax léegi honorable député wax na dëgg ñun ci àll bi lañu ñu nekk li nga def jam ñaajo ñoo ngi koy rafetlu waaye nag euh, soxla nañ nga wàcc si aussi ci base bi boo gisee ma lay wax loolu aussi euh, ni ma ko gisee kenn mënut a wax un Sénégal émergent te boole woo ci industrie bon liñ la jox dañ ko seet seetantal ko wóolu la ba xam ne mën nga koo def mën nga koo lijjanti yaag sa nattangoo yi nga xam ne ñoo la jàppale ndax kenn nit mënul dara bon maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm sa nattangoo yi di la wax ne département Mbacké lay xaar commune Mbacké lay xaar région de Diourbel la nga lay xaar ndax ñu nit amuñu géej amuñu dex amuñu port amuñu aéroport lu ñu am muy le commerce te ku ne xam na lii Euh, li euh, Touba di dougal par année ci économie Sénégal bu ñuy wax guerte xajna na la mais defe naa département Mbacké kenn demul ba dess ndax batay pont Bastul ba nga fay tege bon loolu monsieur le ministre dama la koy fàttali li ci dess gërëm ak sant merci madame la présidente